asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu eh, man la Fallou Galass Syll eh, fas yéene ay kàddu jëmee ko ci eh, jëmm ji di Abdou Karim Sarr te bind livre bi nga xamante ne bii am na njuumte lu rëy lu am ci biir loo xam ne ñu ngi ñaan mu dindi ko te mu jëm ci yoonu murit waaye particulièrement kër Cheikh Abdou Lahad Mbacké eh, na gëstuwaat te gaaw koo dindi ndax doon na loo xam ne mën naa mën naa yëkkati la neen muy loolu mu wax ne sëriñ Abdou Lahad yoroon na wayjuru abdu juuf loolu ñu ngi koy xamal ci àdduna bépp ne du lu am te nu mu gën a gaawee pour mu dindi ko moo gën waaye nit buy bind da ngay bokk ci yoon wa soog ca mën na bind boo bokkut ci yoon wa nga dem laaj waa yoon wa waaye bokkoo ci ab tariixa bokkoo ci askan wa xamoo ca dara dem di bind sab liifar di am loo cee def loolu tooñ na yoonu mu murit waaye tooñ na kër Cheikh Abdoul Ahad tooñ na taalibe yëpp kon na mu gën a gaawe moom Abdou Karim Sarr na dem ci liifaram boobu mu daal di koy dindi fa fasaasa ndax loolu mu wax doonut lu wér doonut lu am ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm wasalaamaaleykum wa يا مالك الملك